nettali boobu daa xaw a gudd daa tàmbalee ci Abu Hurayra moo nettali yonante bi damaa féetale woon may sàmm murum koor mi ñuy joxe di ko toppatoo ba bañ koy joxe am genn guddi nag nee na benn waay ñëw di tibb ci ñam wi muy murum koor mi ma jàpp ko nekk waaw yow daal faaw ma yóbbule ci yonante bi mu ne ma dang may jéggal rek man daal dama ñàkk lool loru lool te am njaboot boole ci abu hurayra ne ma daal di koy bàyyi naka ma xëy rek ñëw ci yonante bi mu ne ma waaw ki nga jàppoon biig num def ma ne ko moom day daa di koon bëgg ci bicca ca muurum koor mi ma ne ko faawu daal bu ci ku baax ki mu ne mu daal may jàmbat lool nu mu ñàkke ak nu mu amee njaboot ma daal di ko yërëm bàyyi ko yonante bi ne ko waxul dëgg de te dana ñëwaat genn guddee ngoog abu hurayra ne ma yonante bi ne dana ñëwaat ma daal di xam ne wax na mom, moom yonante bi moom lu wax yàlla ko wax faawu ko dana ñëwaat ca guddik ñaareel ga waa ji ñëwaat tàmbaliwaat di tibbaat ca ñam wa ma jàpp ko ne ah tey de moom faawu daal lay yóbbu ci ku baax ki mu waxat la mu ne ko daal dama amu njaboot te yoruma dara yërëm rek ba tey Abu Hurayra bàyyeeti ko muy guddig ñaareel ga naka mu xëy si yonante bi yonante ne ko waaw ka nga jàppoon biig mu defati mu ne xanaa fan jaaroon guddi gu njëkk rek fa lañ jaaraat moom daal ñëw na di tibb ma ne daal yóbbu ci ku baax ki mu ne ma ma rek damaa loru bari njaboot teeru ma dara yonante bi waxaat ko ne ko ah waxul dëgg de te dina ñëwaatati li ko bi waxee ci guddi ñetteel ga kooku ñëwaatati defaat noonu bëgg a tibb ci ñam wi Abu Hurayra ne ko faaw daal yóbbu ci ku baax ki mu waxat la mu waxoon ne ko man daal damaa loru lool te bari njaboot jéggal ma rek Abu Hurayra ne ko lii kat mooy yoonu ñetteel wi te yoon bu ci ne nag may wax ne ma doo dellu si te gannaaw ba faaw ma gis la nga ñëwaat di baat kon nag tey jii moom faaw daal yóbbu rek mënta ñàkk ne mu ne ma bàyyi ma ma jàngal la ay baat yoo xam ne dana la amal njariñ lool ma ne ko baat yi mu doon mu ne ma so tedde ba jek ngay jang ayatul kursi tambale allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ba laay jamat soko defé dal guddi gogu yalla lay sam ba shaytan mba dara du jage ba ngay xey dal yalla lay sam ñe ma dal koy baye nak nak mu xeyante bi ni waw sa waji num defati ne ma ne ko man day yoon ñettali mo dama dogo won ne ko faaw dal yobbu ci ku bax ki waye mu ne ma rek kon na la wax ay baat yoo xam ne dan la amal njariñ boo ko sàmmee di ko jëfandikoo ah mu ne ko loolaa tax de ma ko bi ne ko waa baat yim la wax mu ne ko wax ne ma soo demee bay tëdd daal na nga jàng ayatul kursi yi tàmbalee ca bi laay ja ba fa mu yem su ko defee daal guddi googu yàlla lay sàmm ba dara du la lor seytaane du la yonente bi ne waaw loolu de moom ab fenkat la waaye wax na dëgg loolu mu wax noonu de moom dëgg la yi ën nettali bi mooy xamal ne la rek guddi gu ne fexeel bu booy tëdd rek nga jàng ayatul kursi yi boo ko jàngee rek yàlla moo lay sàmm dara la lor seytaane itam du la jege ca guddi googa loolu rek tax ñu indi nettali boobu. boo dee xool ci yenn nettali yi dafa daaneele xadd sadaqaka wa huwa kadubun yonente bi daa wax. abu hurayra ne ko koku day shaytané dong la fan kan la nak waye wax na la deug lolou mu la wax ci ayatul kursi mom deug la ndax bim ko ne tema la jangal ay baat yo xamne so de tudd wax ko yalla mo lay sam ba shaytané ba dara dula mana lor ba set tam ko lum don dane ko dane ko moy allahu laa ilaha illa huwal xayul qayoom ba fa laaya jeyam aayatul kursi yi moom wér na ci addis ne moo gën a màgg ci mboolem laaya yi nekk ci alquran ndax ubay ibnu kaxb ci ne ko muslim andee ci saxiixu yonent bi dane ko woon xam nga jan laaya moo gën a màgg ci téere bi yàlla bee mu ne ko mooy allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yonent bi door ab dënam ne ko na sa xol sedd yaa ko xam am na fu waxe mu bi ne hiya sayyidatul qur'an mom ayat kursi moy sangu alquran sang nak lañ ci xam rek moy moy fete kaw mbolem ñamu sang te mo leen di gëna mat lena leena mag